waaw foo jógee force bi ngeen dégg maa ngi dégg ay audio yoo xam Mame Boye Diao koy wax di ko wax ni man maa ko seqoon ak moom ci mbirum oto man dama indi samay oto jëlee ko États-Unis man dama jaay ay oto parking laa yore am bos ñaar fukki xale leen fay ma indi oto yoo xamante ni benn bi 90 millions lay jël mu ransi moom laay dawal mu ni ma bëgg na ransi bi te comme day jaay suuf terrain 30 millions man na ko léegi kaay ma jox la ransi li nga xam moom laa def léegi li moo am na loo xam ne bëgguma sax waxaat ndax ministre des finances wax na ma ne ma bul si waxati mi ngi liggéeyal président sama xarit la dootuma si wax mais bu dinaa génn benn liste boo xamante ni lim loo xam ne jox na leen ay terre ak ay notification dinaa ko publier beneen bi mooy man naa sañ-sañu jaay terrain ndax damay jaay jaay oto ndax damay liggéey mais moom amul sañ-sañu jaay terrain ndax ñetti oto yi mu yor moom yi mu jënd nga xamante ni 150 millions la moom lañ war a laaj en tant que fonctionnaire fan nga jëlee xaalis bi nga jënd oto yooyu noonu ak nan def ba weccoo ko si moo jar benn bis toppaan mooy ñenn ñi nga xam ne dañu nekk di santas ay ak koo xam dañu bëgg may leen ay xaalis tax ñu wax loolu loolu concerné wuñu yoon bi ma nekk maa ngi ci assemblée nationale laa nekk fii may nekk ni lépp lu ma wax dëgg la tey tam am naa profit te incha allah heure boo xamante jarul genn noonu ma ko yónnee oto yi ko yónnee président groupe parlementaire ay miiru ñi ngi ni laa ko yónnee Abdoulaye Daouda Diallo ni laa ko yónnee yeneen ministre même doomi Macky euh, euh, naa ko ko am naa sañ-sañ boobu pour jaay samay oto képp ku ma jàpp ne war ngaa ma la ko yónnee ba fekkente ne nag xëy na peut-être même député yi ne fii bari na si ñoo xamante ni man jaay naa li oto 40 millions moom la ñuy dawal ku si mel ni Yaya Sow maa ko jaay oto bi muy war à 40 millions kon am mu nekk génn audio li ñu defoon Ousmane Sonko nag boo waxee nit ki mu génn audio loolu leen bëgg def pour yàq sama der mais mun ñu yàq sama der mun ñu ma génneel benn tarfataay loo xam ne méngoowul ak li xam moom laa war def man du leen ñaan soxlu ma si ñoom te am na si loo xamante ni Kouthia Kouthia bu TFM sama seede la la mu def Kolda maa ko jox mu def ko maa ko boole mu génn ko ci émission bi muy def euh, euh, ci ngoon gi muy muy Kouthia comédie man maa ko boole Mame Boye Diao li si des nag rawatina dinaa ko dinaa ko waxaat incha